بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere borom bi subhanahu wa taala nu toll ci suratu tawba tey ñuy jël ñetti aaya mooy aaya 124 125 ak 126 127 mu nekk ñeenti aaya ñeenti aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nu ciy jàngal juróomi mbir ba ca jiitu mooy taqrir mabda ziyadatul imaani wa nuqsaani ziyadatuhu bi taa'a wa nuqsaanihi bil isyaan tey danañ jàng ne sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nuy saxalal ngëm yàlla day yokku waaye day wàññeeku ndeke ngëm yàlla day yokk waaye ni mu yokkoo noonu lay wàññeekoo kon dafa jaadu bu dee ngëm yàlla day yokk day wàññeeku ki bëgg am ngëm goo xam ne day yokk mu xam lan mooy yokku ngëm waaye dana jaadu ki nga xam ne dafa bëgg ngëmum du wàññeeku mu xam lan mooy wàññi ngëm ngëm yàlla li koy yokk mooy bittaat topp yàlla yi yi la yàlla wax nanga ko def ibaadaat yi julli yi koor yi joxe azaka yi aji màkka yi saraxe yi jàng alquran zikri yi lépp lu baax loo xam ne yàlla santaane na ko mu nekk ibaada loolu soo ko defee sa ngëm yàlla day yokk waaye mbokk yi lan mooy wàññi ngëm yàlla mooy ay bakkaar yu bari mooy yàlla day wàññi bakk day wàññi ngëm koo xam ne amoo frontière da ngay xët bakkaar bu la neex nga def lu la neex nga def lu la neex nga xool lu la neex nga déglu lu la neex nga lekk lu la neex nga sol lu la neex nga naan fu la neex nga dem yow kooku mënut am ngëm kon dafa bokk ci ngëm-ngëmu diine rawatina diine lislaam mooy ngëm day yokk day wàññeeku léeg-léeg nga dégg kenn ci mbokk yi ku ne man de sama ngëm li day wàññeeku rek lu ko waral mooy jaamu yàlla yu baax yu yokk ngëm moom nga wàññi jullit su wàññee koor yi muy koor bu dee weer ramadaan rek lay xaar pour mu woor bu dee saraxe azaka rek lay xaar bu dee jàng alxuraan du laal téere bu dee zikr tudd yàlla du ko def bu dee du naafila guddi bu dee du woor lundi du woor jeudi du woor ayaamul biit amul benn wird bu muy def ci alquran amul dara lu muy jàng kooku munta am ngëm gu yokk jamais foo ko fekk day am dooful iman parce que yooyu ñuy wax ni loolu mooy yokk ngëmu doomu aadama chaque jour daf lay contrôler daf lay dimbali sa ngëm du wàññeeku ndax loolu moo koy aar ba ca tegu mooy jawaaz al farax bil imaani wa saalihil amal dagan na ab jullit muy bég ci ngëm waaye muy jëf ci jëf ju baax bu mu def ni ni ngay lekkee di kontaan am na ñoo xam ne ci ñun fii suñu lekkee ginaar nu ñuy def bu ñu leen woowee bu ñu leen woowee reeru ginaar ñu ubbi bool bi ñu gis ah bool bi tey ginaar la de balaa ñuy lekk ñoo ñu ñoo ñu woo lu ñuy def ah bu ñu la woowee ci xar muñ lakk nag ah da ngay jooy nooy def ah da ngay kontaan bu fekkee dañ la woon lekk bi mu ngi nii nga ñu ubbil la bool be nga gis fruit yi ñu ubbi fay nga gis yi ñu ubbi fële nga gis nooy def day kontaan allah naka noonu ngëm yàlla jullit dafa war di kontaan ci ngëm waaye dafa war a bég ci jaamu yàlla yi da ngay fanaane guddi naafi la nga bég ci nga yeewu fajar dem jàkk julli ji nga bég ci nga jàng alquran nga bég ci nga xam ne tey toroxal nga iblis omar ibnu xataab radiallahu anhu wa arda dañuy nettali benn xissa ci moom xissa bu yéeme Omar mooy amirul muminin Omar mooy amirul muminin Omar xëy suba jël xaram di ko takk ci gétt gi xam ngeen gétt ci bant bi nga xam ne fa la ñuy takk xar mi pour xar bi du pour xar mi du génn kër gi dem di yàqal keneen Omar jël xar mi di ko takk ci gétt gi xar mi daal di rëcc raw bi xar mi rëccee Omar teg tànkam bëgg a dàkk xar mi rek xelam ne ko amirul muminin en tant que amirul muminin nga nekk ci mbedd yi naan da ngay dàq xar dàqagul xar bi de mais lan moo dem ci loolu ah xelam moo ko wax loolu amirul mumin rek mu ne ko tey ma toroxal la rek mu daw naan tey ma toroxal la tey ma toroxal la tey ma toroxal la ba jàpp xar bi mu ñëw yeew ko ñi doon seetaan ñu ne waaw tey ma toroxal la tey ma toroxal la tey ma toroxal la nga jàpp xar bi takk ko toog mu ne waxuma woon a xar bi de ñu ne ko doon waxal mu ne seytaane mi ma doon wax amirul muminin seytaane moo ñuy def loolu nga bëgg a def dara lu baax seytaane na la nga daal di toog daal la koy bàyyeeloo suba dinaa woor parce que suba la lëndi nga xëy suba seytaane coup d'état la ne la xëddoo naanoo ndox démb reeroo de ca rek nga lekk ca rek meew da ngaa waaye bam seydi rek nga burle waaw waaye alhamdulilah nga yeewu xëddoo amaana sax naanoo nga fàttali ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana xëy ne yaay Aïcha tey lu fi nekk allahu akbar wala yonent bi daana xëy du ndékki du am lu nekk këram day xëy ne Aïcha waa tey lu nekk ci kër gi asi ne ko yaa rasulallah dara amu fi de mu ne kon xaar ma woor noonu lay continuer daal di woor sallallahu alayhi wa sallam ñun fii loo alko alko boo yeewoo ah di nga am benn cent franc boo xam ne même bu amul chocolat boog di nga am mburu ak 50 franc mburu sucre 25 café nga ñëw ne mer doo ma may foofu ndox mu tàng quoi ndékki nga wala ndékki woo yaa rasulallah daana xëy du ndékki yenn saa yi mu toog weer cin du tàkk këram cin du tàkk ci këram allahu akbar ñu ne ko yaa rasulallah loo doon dunde mu ne ñaar yu ñuul yi seel ak tàndarma seel ak tàndarma est-ce que yëg ngeen ne yonent bi alayhi salaatu salaam tëdd na guddi mënul nelaw ndax xiif xamoon ngeen loolu ah tëdd guddi mënut a nelaw mu jóg ndax xiif mu boot ay loxoom di wër mbeddi Medina mu ne tëll dajeeg Aboubacar Siddiq ne ko Aboubacar yow lu tax nelawoo ba heure bi ne yaa rasulallah damaa xiif allahu akbar pourtant bu waxoon yàlla na ko wàcceel li lekk yàlla wàcceel ko de boo xam ne yàlla damaa bëgg benn ginaar gu ñor léegi léegi yàlla indi ko ginaar gu ñor gi waaw xanaa gisoo fi am na benn waay boo xam ne nee na damaa tëdd ba guddi rek sama jabar nam mu dibi ma ne ko nii dibi dibi ñëw xanaa kooku yonent bee ko raw yonent bu ne woon ginaar nga defe ne ginaar du ñëw allahu akbar waaye xoolal dafa jóg boot ay loxoom di wër lu mu lekk daal ci mbedd yi dajeeg Aboubacar ñu ne tëll dajeeg Umar Umar lan la ma ne damaa xiif yaa rasulallah mu ne ba munu maa nelaw ma ne xaaral ma doxantu aw yonent bi ne leen nañ jëm kër kër abul ayub al ansari dañ leen dem kër abul ayub ñu tërërëri ñëw fëgg kër gi heure bi du heure ziyaara heure bi du heure jóg du heure dox ah waaw kooku kan la mu ne ko rasulullah allahu akbar mu ne gan gu màgg moo bi bund kër gi recevoir leen rek daw jël paaka yonent bi ne ko mooy tandikul buy nàmpal ak ak ah bu ëmb mu daal di ut benn mbote bu ndaw daal di koy rendi kenn déggul bir wi fees nañ ko kenn déggul bir wi fee saam nañ ko kenn déggul bir wi ñu ngi koy lakk kenn déggul bir wi allahu akbar ba première lakk bi ñu lakk mu ñor yonent bi saa salaam bi ñu ko indilee ne ko commencé ci lii boog balaa affaire yi di ñor yonte bi mu daggee benn coppi dafa sex ci gémmiñam daa di dagg daa di woo doomu abul ayub ansaari mu ne ko demal nga yóbbul Fatima weer a ngi nii lekkul yàpp Fatima xam ngeen kan mooy Fatima ah ah mooy sang jigéeni aljanna weer lekkul yàpp kan fii ñooy toog weer jabaram lekkul yàpp man démb donc damaa ñëw ñu ne ma ginaar laa ree bu laa bëgg a ree de ginaar ginaar démb donc lañ ma ko wax ginaar ma dem jëndi ginaar indi teg waaw gis nga imposé la ah ñun yonent bi daan toog weer cin du tàkk këram cin du tàkk këram allahu akbar il faut kon mbokk yi ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax xam ne ngëm nit da ci war a kontaan ngëm yàlla da ci war a kontaan misaal stade bi gis nga nu mu feesee tey lan la final nga romb stade bi ñëw ci ci jàkka ji déglu tafsir loolu war a nekk benn bànneex ci yow nga julli timis mu nekk bànneex ci yow nga julli fi gee mu nekk bànneex ci yow mu leer na tey lu bon bon li nga alku alku alku alku tey assuré nga sax lu bon bon bon ñaari waxtu ci jàkka yàlla ji kon boo fi jullee cinq prières yi nag ci jàkka ji jëf yu baax yi jullit def ci kontaan ba ca tegu mooy maridul qalb maradul qalb yazdaad marad borom maridul qalb yazdaadu marad borom xol bu feebar xol bi day continuer rek di feebar ñooñ la yàlla naan fi qulubihim fa zaadahumullah marad suñ nee xol bu feebar ndeysaan doon naa discuter ak benn médecin bu ñàkk dégg diine mu ne xol bu feebar naka la xol di feebare xol bu wow xol ci biir dafa tooy nu muy woowee xoola dégg dëggal dox boobu yàlla bu ne xol bi dafa wow lan la ci jublu mooy yow da ngaa ñàkk yërmande dañu dañu jóge voyage démb démb jóge Sédhiou di ñëw tali bi xam nga nu muy tàngee ñu ñu séen benn picc ci digg tali bi di bërëngu amaana oto ko laal amaana tali bu tàng bi moo lakk yar moo lakk tànk yi suñu chauffeur bi romb ko daal defaat demi tour ñu ne ko lan la mu ne dafa am lu ma gis ñu ne ko mais lan la mu ne dafa am lu ma gis rek ñu ñëw mu daal di wër picc mi taxaw ñu xool gis muy picc mu ne deewul mu wàcc ubbi oto bi jël picc bi dugal ko ci biir di ko may ndox ñun gisuñu ko mais moo ko gis maanaam jullit dafa war a am yërmande ar rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon yërmande dafa bëggoon kuy yërëmaate moo tax mu ne irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi ci suuf waa asamaan yërëm leen man laa yurham laa yurham man laa yarham laa yurham ku dul yërëmi kenn du la yërëm jullit dafa war a am yërmaande ah lan moo lay may yërmaande mooy xol bi am yërmaande waaye xol bi boo wee koŋ nga xam ne mën ngaa jël paaka jam nit mën ngaa rend nit mën ngaa butti nit lenn saa nga dékku ne dama lay fees dama lay dama lay parce que xol bee wow kon jullit su xolam feebaree mën naa def lu nekk su xolam feebaree dootul jaamu yàlla su xolam feebaree ngëm yàlla dootu ci nekk dootul am tawxiid boo ko gis day bokkaale day def ay musiba ba ca tegu mbokk jullit yi mooy jullit bu xolam wéree bu wé xol be wéree këng dafay dolleeku wér loolu mooy sunanullah fil ibad nit bu xolam wéree rek léppam day wér bu xolam wéree xelam day set jaamu yàllaam daf koy teg ci lu leer waaye bu xol bi feebaree day wow jaamu yàlla yëpp ay lëndëm ci bokkaale la koy teg ba ca tegu mbokk jullit yi mooy kas kasful agra axwaar al munafiqin ci aaya yi ñuy jàng tey yàlla dafa génne ay secret yàlla dafa sulli ay mbóot ay secret yoo xam ne naafiq yi moom lañ gëmoon yàlla da leen a gàcceel ci fin wu suratu tawba yàlla dafa sulli mbóotu naafiq yi xam ngeen naafiq mooy koo xam ne chaque jour moo ngi nëbb lan ak kéeféer di feeñal lan ngëm yàlla loolu mooy naafiq naafiq mooy koo xam ne li muy def gëmu ko mais daf koy def ndax intérêt wala ñàkk pexe mais gëmul li muy def yàlla tabaraka wa taala ci jeexitalu saar bi yàlla dafa gàcceel ña naafiq yi ndax dafa génne seeni secret juróomeel mooy yustahabbu an laa yuqaal in sarafna min as-salaati aw ad-dars dañoo sopp ab jullit muy contrôler langage am muy bañ di wax pare nañ ci julli gi pare nañ ci dars bi pare nañ ci julli gi kenn du ko wax da nga naan da nga naan ah ah ah ah da nga naan julli nañ ba pare wala def nañ dars ba pare waaye pare nañ ci loo pare dootoo ci dala pare naa ci yow mooy lan dootuma wax ak yow yow terminé pare naa ci yow kon dañu bañ ab jullit muy wax insaraf naa min as-salaa parce que insiraf mooy soppeet mooy loo xam ne sa kanam dootu ci jubluwaat pare nañ ci dars bi dootoo ci parewaat dootoo fa demaat loolu dañu bañ jullit di ko wax bëgguñu ko dañoo bëgg jullit naan naan ah ah dégguma ah def nañ ko ba pare walla léegi lañ jeexal ki ngay waxal soo ko nee léegi lañ jeexal walla julli nañ ba pare lu muy dégg danañ ko defaat waaye pare nañ ci loolu dañuy bañ jullit di ko wax mu ngoog kon su ko defee bi isnillahi tabaraka wa taala ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu ñeenti aaya yooyu nga xam ne moom la ñu war a jël tey fal yatafaddal maskuran majura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نذر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وكسر الله أمثالك sunu borom subhanahu wa taala moo ngi nuy soññ ci saar bi di ñu leeralal lenn ci mandarga naafiq yi mu ne wa iza ma unzilat suura bu ñu wàccee benn saar mu ne fa minhum ndeysaan am na ci ñoom ci naafiq yi bu ñu déggee alquran wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga dégg naafiq yi am ci ñoom ñoo xam dañuy taxaw naan fa minhum man yaqulu ayukum zaadatu haadihi imaanan waaye yéen lii ngeen dégg nii kan ci yéen la yokku ngëm waaye yow dars dar jàkka ji ngay dem nii di déglu yow yow yow dars yi ngay déglu lan la lay jëriñ ñu leen koy wax yow samedi bu nekk rek ngay langar la nga yow lan la yow loo fa jële ayukum zaadatu haadihi imaanan yow li ngay def lan la la yokk fekk moom comprendre xamul yow yaa ngi dem di charger sa batterie xam ngeen batterie oto ah ngeen ñoo am fi oto ana bar oto yi fii batterie day batterie day day wàcc su wàccee nooy def da nga koy charger waat soo ko bàyyee noonu mu wàcc ba jeex takk ndax oto bi dina dem loolu mooy xol ngëm yàlla day yokk day wàññeeku li koy yokk mooy jaamu yàlla yi place yu mel nii day yokk ngëm samedi bu nekk sax nga ñëw nga dégg dara loo xam ne day day yokk sa ngëm loo xam ne dina la téye ah ba samedi bi di ñëwaat ndax jamono bu lëndëmee doomu aadama dafa war a ut luy yokk ngëmam parce que tey xam ngeen ne suñu kër yi mbedd mi suñu liggéeyukaay yi suñu réew mi yëpp luy yokk ngëm moo fi nekk wala luy wàññi ngëm ah léegi bu fekkee luy wàññi ngëm rek moom ngay gis ci dëkk bi yëpp ba ci sa biir kër ba ci sa biir néeg léegi yow kon fooy jëlee ngëm gu yokk kon laaj na nga am ay ruq yoo xamante ne fa ngay dem di charger sa batterie di charger sa ngëm moo tax borom bi ne fa minhum am na ci ñoom ñan naafiq yi ñoo xam ne bu ñu wàccee benn saar wa iza ma unzilat bu ñu wàccee suura benn saar wala aaya fa minhum am na ci ñoom man yaqulu ku naan ayyukum zaadul haasi iman waaye li ngeen dégg sànq moom loo ci xalaat noo ko gisee est-ce que yow au conférence bi nga demoon waaw noo déggee waa ji li mu doon wax moom daal daa mel ne suñu mag ñi rek la doon dajji moom daa mel ne mag ñi la doon xas man loolu laa sentir daal loolu laa gis wala waa ji li mu doon dégg yëpp ñu naan yàlla nee na yonent bi nee na bàyyi leen bokkaale bàyyi leen bàyyi leen bàyyi leen pour moom lan la ay tooñ laak ay xasak ay mag lañ doon weddeeg nangam ak nangam déedéet fekk yàlla moo doon wax ñenn ci ñun noonu lañ mel dañuy yaakaar ne aaya yi nga xam ne moom la yàlla di wàcc aaya yi du yokk nit dërëm ah kay alquran mooy dëgëral nit soo gisee ku am tawxiid alquran la soo gisee kuy jaamu yàlla dëgër ci këng alquran la ndax wasail sabat iman alquran la jumtukaay yi dëgëral ngëm yàlla alquran kese la moo lay dëgëral sans alquran da ngay yolom mel ne witteen fu la ngelaw yóbbu naaw ak yow loolu mu leer ci ñun naa fekk yi ñoo yor jikko yoo xam ne suñu wàccee benn saar wala benn aaya nga dégg ñu naan lii ñu doon dégg léegi léegi ci yonent bi kan la yokk yàlla nee na fa amma alladina amanu bu fekkee way gëm yàlla yi fa zaadatum imanan da leen di yokk ngëm allahu akbar wa iza tuliyat alayhim ayatuna zaadatum imanan am na ci ñoo xam ne sax bu ñuy jàng alquran yàlla nee na wajilat qulubuhum ngay gis seen xol yi tooy seen bëri di tuuru rongoñ léegi rek ngay gis ñuy jàng alquran wala ñuy conférence wala ñuy def dars nga gis nit ñi ree sahaaba yi xamuñu woon dars di reetaan sahaaba yi xamuñu woon loolu toog ñu leen di wax yow man par exemple ñuy wax yow man qiyaamati ëllëg su yàlla jàppee jaam ñi boo bi safara malakal mawti ne tëll ñu ubbi jahannama nga dégg naan sahaaba yi bu yonente doon wax loolu da ngay gis seen bët yaa ngay tuuru bokk na ci imam bi imam bi fi jiite vendredi nettali nañu benn xadisu irbaat nee na yonente bi saa salaam dafa xëy waar ñu waar boo xam ne keroog kenn reerul suñuy xol fees na rongo ñi tuuru nañ sikki mi tooy nañ waaw gis nga sahaaba yi ne ko yonente dafa mel ne da ngay tàggoo sawaaraate tey bii dafa mel ne dag ñuy tàgg yokkal dollil ñu yonent bi waar leen ba pare bokk na ci hadis ba ba muy jeex mu ne leen innahu man yaisu minkum fa sa yara ixtilaafan fa alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa arrachidin almahdiyin ku dund ci yéen ay at yu yàgg dana fi fekk ci àddina bi jullit yu tàqali ko ñii jaar ni ñii jaar ni ñii jaar nii kenn ku nekk ne nag bi la ca duufoon maa ko jël yóbbu sama kër ñu ne lislaam gaa yi rendi nañ ko Sénégal Sénégal dañoo rendi diine ab nag la ñu rendi ko ku nekk jël saam bu gën a duuf yóbbu sa kër tiitaru ne maa ko maa ko yore waaw lislaam moom amul Sénégal dañ ko rendi bu yàgg waaw ana ana islaam sunu dund amul fi amul fenn sunu biir kër yi amul islam sunu jàkka yi amul islam sunu mbedd yi amul islam fuñ jëm amma allazina amanu bu fekkee way gëm yàlla yi fa amma allazina amanu fa zaadathum imanan lii da leen di yokk alquran da leen di yokk sunna yonent bi da leen di yokk waxu borom xam-xam yi da leen di yokk ndax ñoom dañoo am ngëm ba pare ñoom duñ ci yem de wahum yastabsirun dañuy kontaan ci ngëm yàlla boobu allahu akbar bu ñu yeewoo fajar ba dugg ci ndox mu sedd mi ba jàpp am ay heure yu ñu naafila seen kër génn dox ci lëndëm gi dem ci jàkka ji julli ba pare toog fa tuuti def seen i askar génn di dox ci leer bi jëm seen kër yi dañuy yëg mbégte gu neex seen xol yi dañuy yëg dañuy sawar bu ñu wooree ba ngoon bay dog dañuy kontaan bu ñu jàngee alxuraan ba mu jeex dañuy kontaan bu ñu defee seen askar dañuy kontaan dañuy yëg ni tey dëgg yàlla tey moom am naa bénéfice de tey xëy naa julli fajar ci jàkka ji jàng naa alxuraan damaa woor def naa samay azkar ah waaye tey moom neex na di mu ngi mel ne ku xëy rek naan tey yónnee nañ ma Western Union yónnee nañ ma MoneyGram MoneyGram yónnee nañ ma Ria yónnee nañ ma Orange Money yónnee nañ ma Wari ayee kooku journée am neex na wala neex ah du ngeen ma tontu neex na waaye kële moo gën a neex ki xëy fajar dem jàkka ja julli fajar ci heure bi def ay asgaaram jàng alquran bis boobu dafa wooroon ah def lan ah mën na seeti nit ku feebar wala mu gunge néew wala foog ñaati yaabala am yonent bi xëy na di laaj waa ñett yi koo def tey aboubacar yëkkati loxo ne ko ñett yëpp def naa ko mu ne ko ñett yi du daje ci kenn lu dul mu nekk nitu aljanna ñett yi lan ak lan la woon ah woor ak lan gunge néew ak ah seeti ku feebar mu ne ñett yi du daje ci nit lu dul mu nekk nitu aljanna allahu akbar aboubacar ne ko ñett yëpp def naa ko tey ñun bu ñu xëyee lu ñuy wax kan moo tey xëy tey daw ba géej a dëgg waaye na man quoi kan moo koy tey di yëkkati ay poids di altéro rek war gay benn borom xam nee na nit ñi dañ maa jaaxal mën nañoo yëkkati ay poids 200 kilos 80 kilos 50 kilos 30 kilos ah waaye mënuñoo yëkkati mbàjj fajar dem julli ji mbàjj mbàjj ak yooyu ñuy altéro lu gën a diis kan moo may tontu mbàjj ak poids lu gën a diis ah poids poids ñaata kilo la am na 15 am na ndeysaan yenn saa yi am na benn émission bu ñuy teg ci benn télé télé aqwa rajulin fil aalam ki ëpp doole ci àdduna bi ñu takk avion mu xëcc ko mu ñëw ñu takk 6 21 def ci ay bagage mu xëcc ko mu ñëw ñu ne kooku mu ëpp doole ci àdduna bi kooku bu fajar jotee mënul yëkkati mbàjj mbàjj dem fajar jàkk julli mun na xëcc avion bi mënul xëcc mbàjj loolu mooy tey ndawi ndawi ndawi Sénégal yi ndawi Sénégal yi démb heure bi moom ma fekk corniche booru université booru géej gi ah booru rëbës heure bi démb fa laa jullee timis waaye foofu yëpp dañ ko def place su place entraînement dafa fees del del del del del del del moo raw stade ci ay góor ak jigéen yuy entraînement entraînement ba gee ngay daw rek yëkkati poids xëcc xëcc fii tëb lu ne nga dugg ci julli woo timis julli woo gee ndeysaan ngay entraîné rek di ngandal sax yi naan la wuu na dëgër de sa waay na dëgër su muñ dajee yow ci bàmmeel danañ ko coob ba mu jeex tak waaw ngay jaay dënd bu ngande sax yi kontaan nan allahu akbar boo yaa ngi gis waa ji kii moom xam naa ne kii moom xaw ma fu mu dëkk waaye dinaa ko topp fii se ko fu mu dee fu mu dee fu ñu ko suul dinaa dugg ci suuf si fekki ko fa ah loolu la loolu la ñu de loolu lay sax yi di wax de allahu akbar moo tax doomu aadama bu dee bañ dugal ko ci biir bàmmeel sax yi dañuy ñëw ne pat toog ne la doomu aadama nga ne waa mu ne da nga doon dox di bonde bonde jeex na tey wala da nga doon ngand ngandulu ngand ngandulu jeex na da nga doon lekk suma kaw tey jii dama lay lekk sa kaw sax yi dañ lay lekk ma jeex tàkk yaram yi lu ñuy ngand ngand ngand lu ñuy nooy nooy lu ñuy ligs ñuy diw ak a raxas ak fomp sax yi dañ koy lekk moom jeex tàkk ci biir suuf deux jours ci biir suuf buñ la génne woon ñëpp daw sa lépp dana toj bëri dina mbuqeeku suuf si dugg ci bakkan bi dañ suuf si dugg ci gémmiñ gi ŋaang suuf si dugg ci biir bi toj suuf si dugg ci kon entraînement yeeg amul benn njëriñ wa kafa bi salaati riyaada julli doy na sport da ngaa bëgg sport boo jullee gee bismillah tàmbalil xiyaamul leyl taari taril baxara par rakk jëlal hizib rek par rakk di nga taxaw ba dootoo mun taxaw nga rukkoo rukkoo lu mel noonu xoolal benn saxaaba nee na dañoo julli gee ba pare may seeti yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma dugg ci biir néegam rek ma fekk ko mu kàbbar mu ne ma reculer teen ak moom daal di kàbbar mu commencé jeexal faatee jël baqara ma naan xam naa ñaari aaya ñetti aaya yonent bi day rukkoo yonent bi jeexal baqara saxaaba bi naan ah xanaa kon baqaraa ngi waaj a jeex day rukkoo mu jël ala imran saxaaba bi nee na li yonent bi jàng ci ñaari saari lu toll noonu la rukkoo lu toll noonu la sujjóot mu siggiwaat jëlaat nisa mu jeex mu jël maida bi muy sëlmal ñaari ràkk yi mu dégg bilaal naan asalaatu xayru min an nawm kon yonente bi ñaari ràkk la def guddi gi yëpp ñaata ràkk la ko def ñaari ràkk ñun fii di bu la ilimaan jitee jàngal lam yokku sax imaam dafa la attention quoi xam nga ñun dañoo màgget mënatuñoo taxaw ah da ngay gis koo xam ne mën na taxaw ci banque bi di ran gise cinquante minutes ah mënul taxaw fii benn sa pare rek darde moom dee na njuuti démb am na ko doon wax seen rakk yi dafa gudd waay dafa gudd foo ngeen koy wàññi c'est trop c'est trop di tubaab tubaab lu nag te boo taxawoon ak benn xale bu jigéen doo bëgg mu dem su la nee ma guddi non non non non booy toi aussi ma taxawal doo taxaw mais yaa ma fi indi mais booy loolu def nii waaye xoolal fu ma jóg ay doonoo taxawal. lu tax lu tax lool loo nga bëgg a taxaw ak xale bu jigéen bu ko taxaw ak yàlla wala am na wala amul. nañ ragal yàlla nañ leen ragal yàlla nañ yàlla gënal lépp waaw sunu yàlla gënalee lépp rek. dañuy rëcc ixwatal iman borom bi nee na wa amma allazina fi qulubihim marad bu dee ñu feebar ñi seen xol yi am feebar bëgg àdduna feebaru naafeq feebaru sikki sàkk feebaru lépp ñooñu fa zaadathum rijsan alquran bi au lieu mu jëriñ leen waaye musiba moo la mooy yokk ci ñoom rijis najas sobe mooy yokk ci ñoom musiba mbugal toroxtaange alkande moom la borom bi tabaraka wa taala di yokk ci ñoom au lieu bu ñu déggee alxuraan ñu jëriñu waaye bu ñu déggee alxuraan alkande lay nekk ci ñoom ndax du leen jëriñ ndax xol yee yàqu borom bi ne fa zaadahum rijsan alxuraan bi da leen di yokk mbugal ak sobe ila rijsim mu fekk fa la fa nekkoon ci sobe mu ne wa maatu ñii danañ dee waxum ñoom kaafiruna ay yéeféer la ñuy nekk parce que terminé xol yi yàqu na ñii kenn mënatu leen a waar kenn mënatu leen a delloo nii ñu mel ci loolu la ñuy dee dem safara ku dee dem safara musiba dal na la ku dee fekk sa xol nii la mel borom bi nee na safara nga jëm wa maatu waxum ah kaafiruun dee nañ fekk ay yéeféer lañ ku dee nag fekk nekkoo jullit wala tamuutunna illa yaa ngi dee ci yëfu yéeféer yaa ngi doon dund ci ay caaxaan ba sa xol yàqu mënatoo dellu da ngay dégg fi benn waaye ne la wuu man mënumaa yeewu fajar gis naa benn wa benn waaye boo xam ne xam nga lu mu doon xuloo xam ngeen lu mu doon xuloo lu tax ngeen may yónnee heure julli yi non booy bu ma yónnee ti heure julli yi wax naa la ko bu ma ko yónnee ti waaye yow li daal la uwe xoolal xulli ba di yuux waa ji ne ko dootuma la ko yónnee heure julli rek waxuñu ko jógal julli heure julli rek la ko yaa waa ji di yónnee jeudi la koy yónnee jeudi pour xam nga vendredi la ñuy joxe kii jeudi waaj da koy yónnee mu dajeeg waa ji rek créer ko problème ne ko lu tax nga may yónnee heure julli yi laa ilaha illa bu ko doon yónnee 10 000 par par jeudi bu nekk 10 000 jeudi bu nekk mu wari ko 10 000 wala mu orange mu ne ko 10 000 waa jooju lu muy wax non allahu akbar oh non yow sa waay da nga baax quoi yow da gis nga parce que alalu àdduna waaye xoolal heure julli waa ji mer di créer histoire kooku ne ko dootuma la ko yónnee neexu la dootuma la ko yónnee man du yow kese laa ko yónnee ñëpp laa ko yónnee mu ne ko waa man génn ma ci bu ma ko yónnee gis nga kooku est-ce que dina julli koo xam ne dañ laa yónnee heure julli rek nga mer ndax yow di nga julli ah waaw am na koo xam ne nee na yow yow vidéo conférence yi rek nga may yónni yow audio diine yi rek ah bu ma yónnee loolu waay ñun ban lañ jëm ñun ñooy ñan ñun ban àdduna la nekk ñun est-ce que jotul ñu xoolaat suñu bopp bu dee ñun caaxaanu àdduna rek ak li ñuy gis yëpp ci ak waar ak li ñuy dégg yëpp ak li ñuy jàng nii ci suñu xel di ko gis ci àdduna bi loo fi nekk nekk nekk nekk nekk champion un jour viendra wa annakum ilayna da nga delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala mbokk jullit yi xelu delluwaat ci yàlla jot na suñu borom bi nee na xanaa ñii gisuñu awala yaraw na annahum xanaa gisu leen ñoom yuftanuuna dama leen di fitnaal fii kulli amin at bu nekk dinaa leen fitnaal marratayni ñaari yoon marratan benn yoon aw marratayni wala ñaari yoon at bu nekk yàlla nee na dëkk bu mel nii at bu nekk dinaa leen mbugal ñaari yoon wala benn yoon loolu ñun lan lañ ci jàng chaque jour ñu gis mbugal mu am chaque jour ñu gis Sénégal mbugal wala yenn saa yu mbugal yi tegaloo wala wala awalaa yaraw na xanaa du ngeen gis annahum ñoom ñii mel nii nekk ay naafiq gëmuñu yàlla nekk ci ay caaxaan yuftanuuna yàlla nee na ma leen di fitnaal fii kulli aamin at mu nekk marra benn yoon aw marra tey ni wala ñaari yoon wala Sénégal ni métti instant yi ñëpp yéen ñi nekk ci jàkka ji nangu ngeen ne Sénégal dafa métti wala méttiwul dafa neex ah dafa métti wala dafa neex Sénégal dafa métti ñëpp léegi ay ñaankat lañ ay yelwaankat lañ kenn amatul lu la doy ñii dañuy añ ñii dañuy ndékki duñu añ ñii añ duñu reer ñii dañuy tegale duñu ndékki duñu añ duñu reer yenn saa nga gis ku ne na wallahi journée bi yëpp sama gémmiñ gi lekk dugg ci xoolal léegi lekk yu ndaw ndawaan yi ñuy jaay ay fondeek ay cereek ay ndambeek ay ay bu xam saak ay yooyu bu njëkk ba bu njëkk ba laa ñun bi ñu ne gën a nekk ay ndaw suñ demoon ci kër ñun ay taalibe lañ dañ doon yalwaan ñun suñu kër taalibe yi fa nekkoon daara ji ñu doon jàngee dañ daan yalwaan suñ demee ci kër ñooñu togg fonde wala cere dañ naan ndeysaan ñii wala kaana lañ allahu akbar fii de door ma fi yalwaan ma ñëw ñu may jox fonde suñu génnee fonde boobu ci buntu kër gi lañ koy këpp bu waa kër gi xëy suba gis fonde bi ñu dana leen ko këppal ñu duñ ko lekk waaw ñi amuñu dara ñi wala kaana lañ tey tey ku togg fonde mooy patron la ila ku togg cere da ngay gis nit ñi di ko jëndi da ngay gis tey ku jaay fonde ba tabax këram ku jaay fonde ba aji màkk maire fonde abonné maire weer bu dee incha allah dama abonné weer bu dee dama lay fay ndékki fonde reer fonde da ngay gis ku jóge am na benn waaye buy jaay maire maire buy jaay fonde taximaan yeeg ñiy liggéey Dakar ak 4x4 yeeg dañuy ñëw jël mbuus yóbbu Dakar réew mi metti na ci ñoo xam ne ëllëg suuf soo fi soo fi nekkoon gan nga dem benn kër ñu tegal la fonde da ngay xoolaat waa kër gi parce que loo doon xaar waaw Dakar laa dem Dakar benn kër ndeysaan wuu yàpp lañ ma toggal reer kenn man de Dakar laa dem kër googu fonde lañ ma tegal fonde fonde bi amul sax meew suukar rek lañ ci def ñu ñu ndeysaan ñu ndey wala kaana lañ tey ñu ngi nii ñun ñëpp patron bu fi gën a riis sa kër fonde la ñuy togg guddi illa man rahima rabbuk bu dee salade yooyu ak yooyu ñuy wax turu salade rek dee ko dégg de 200 salade la ñuy jënd ñetti pombiteer firij ko benn kilo mburu dagg ko ay dagg yu rafet benn jën bu ndaw ñu teg ni ni mbattaa jungoma ruttotaa ko boo paree daal ne waaw yi me- yi maire même foofu cent franc waaye mu jënd fond ah xanaa reeroo wax yow duur waay waay dëgër bu ndaw bi xale yi góor yëpp loolu la ñuy jooy fii guddi lii lañ leen di jox mburu lii lii daal lii daal surponkal lii waaw mu ngoog surtout nag waa ji jógee entraînement ñëw dugg ci waañ bi waaw maire doo xam ne de xay dara daa ki du lii de dara de su fi tey yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp suñu borom nee na su ma laa yo tuubuun yéen a ngi gis yàlla mu ngi leen di nattu at bu nekk mu nattu leen benn yoon wala ñaari yoon te du ngeen tuub su ma laa yo tuubuun du ñu tuub ñu delluwaat ci yàlla courant baa ngi yokk ndox maa ngi cher dëkk baa ngi metti foo génn ñu dóor police yi wulli la ba nga nooy jàpp tëj kenn du wax alaa yo tuubuun luñ teree tuub hmm? wala du loolu moo nekk seen kaamil wala sama kaamil rek la nekk ah summa laa yatuubuun xoolal ni mu mettee yëpp ñëpp war a tuub dellu ci yàlla yàlla neexalaat dëkk bi ñuy wow wowlu di dëgër bopp nekk ci ay caaxaan xoolal nawetaan ba heure bi nawetaan ba ba temps bi ah ba kañ xanaa li kay nawetaan war na jeex nawetaan ñaata weer la war a nekk léegi nawetaan atum lëmm lay doon atum lëmm ñuy football rek xoolal caaxaan yi xoolal lii ay góor ak jigéen xale yu ndaw sol yu bon jaxasoo sànq waxtu wi lii nii depuis depuis suba huit heures ba léegi nii ah huit heures ba huit heures ñaata heure la ku waxee ci tool di nga gañe dara wala doo gañe dara ah waaye gis nga ñi nit ñu naxee dafa ëpp nit ñu naxee ndawi Sénégal yi dafa ëpp ni xaw ma dañ ñoo xërëm xaw ma lan la ñu ñu jege si ndax ñin ne ñeneen ñi mën a am place ixwaan yi borom bi nee na summa laa yatuubuuna lu tax duñu tuub wahum ñoom yazakkaruuna te ñu fàttaliku waaru laa yataawazuun duñu waaru ci xol yu dee yi lu tax duñu waaru ci événement yi leen di romb lu tax duñu romb duñu waaru ci xew-xew yi nga xam ne ñoo ngi ciy teg seeni bët lu tax loolu borom bi nee na wa iza ma unzilat bu ñu wàccee suura benn saar bu fekkee benn saar wàcc na ñu fekke ko ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu toog ci wetam nazara baaduhum ila baad nga gis ñuy xoolante naan nii mooy fii li ñuy def rek di piisante yenn saa yi nga gis ku indi benn xaritam tafsir ustaas di tafsir mu ne ko nazara baaduhum ila baad ñuy xoolante allahu akbar sunu boroom xam nañu alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir wa iza ma unzilat bu ñu wàccee suura benn saar nazara baaduhum ila baad ñuy xoolante hal yaraakum min ahad ndax am na ku leen gis haa ndax gaa ngi lay xool ndax seen xelan ci yow ñu ne déedéet su man sarafu ñu daal di yolleeku ci beneen porte bi wane ginnaaw daal dem yenn saa yi nga nekk ci jumaa di xutba ba caag rek nga gis benn waaye lem si yaa dem kii di jàkk ci lu tax waa ji dem parce que danaan li mu dégg neexu ko yenn saa yi ngay def conférence ba caag nga gis ku jóg ci siège bi wane ginnaaw pourquoi parce que danaan li ma dégg neexu ma yenn saa yi nga gis ku ñëw dars ñuy wax ba caag rek mu daal jël ay dàllam su man sarafu daal di daal di jaar beneen porte parce que danaan li ma dégg neexuma lan nga dégg mooy yàlla kese kese yàlla nee na yonent bi nee na alquran moo ko wax wa iza zukira allah wahdahu suñu waxee yàlla kese kese kese lu xaw mu ne izmaazat qulubu allazina la yuminuna bil axira nga gis xolu ñi gëmul yàlla gëmuñu alaxira non dem naa fa mais yéen seen oustaz bi mais seen oustaz bi lu muy wax dafa grand ah mais mais yéen seen imam bi mais yéen seen sëriñ bi yéen seen kilifa gi li muy wax ah non non. benn waaye dañ ko ne soo demee ci téere sàngam sëriñ diw moo wax nangam ak nangam mu ne non defal ndànk attention loolu amul. ñu ne ko xoolal jarul histoire jarul xeex jarul xuloo da nga bëgg a dëgg mu ne waa ñu ne ko demal mu dem kër sëriñ ba ñëw ci doomu sëriñ bi ne ko dafa am lu may laaj. ndax suñu tarixa bi nangam ak nangam bi am na ci kooku ne ko waaw nangam nangam sëñ bee ko wax mu ne waaw mu ñëwaat gars yi ne ko waaw sawaay mu ne waaw ah ñoom ñoo ko wax mais il faut ngeen di waaraate ndànk ko waaw waaraate leen ndànk li ñu waaraate ndànk dëgg gi lañ la wax jeex na yow kay xam nga lan la dëgg bi boo ko déggee da ngay vérifier ji dëgg la wala du dëgg pour nga mën a justifier mais dégg dara di mer amoo droit mer da ngay vérifier ji ndax li nga dégg dëgg la wala du dëgg ndax waa jii ne la dafa am ñoo xam ne du ñu julli du ñu woor dëgg la wala du dëgg ndeysaan naar bi ma àndaloon fan yi fu ñu romb dama koy expliquer bi ñu gisee ay nit ma expliquer ko ma ne ko ñii duñ julli duñ woor mu ne ma ci ban tarixa lañ bokk ma ne ko lislaam mu ne loolu mënul nekk mu ne kii kan la borom kaala gii ñu tegale nii kaala yi bëri yii ma ne ko nee na moom mooy Mouhamed mi nekkoon fii moo ñëwaat fii mu ne eh mu ne chauffeur bi jaaral beneen yoon ndeysaan xoola lool rek xoola xel yooyu yonent bi moo nekkoon fee ñëwaat fii lu muy ut fii ban mission lay ut fii ku ko yónni bi mu ñëwee fii kan moo ko ne demal Sénégal mais fii woote bu ne ngay dégg kii ne man maay Mahdi kii ne man maay kii ne maay maay seytaane donc laa fi déggul te léegi nga gis ku ko wax billaahi ñu ngi jëm ci kanam léegi ngeen gis ku ne tëll ne leen maay seytaane maa ngi nii dem leen rek di ngeen ko dégg ndax lu nekk instant yi dégg ngeen ko ñii dañuy gis yàlla ñii dañuy wane yàlla ñii ñooy mahdi ñii ñooy yonent bi ñii ñooy ah waaw ñii ñooy isa ñii ñooy dajjal ñii ñooy am na de am naa ko ne jaay naa samuru seytaane gis kon des na tuuti benn waay na tëll leen maay seytaane maa ngi nii ñëw leen nga gis taalibe yi ñëw di ko wuysi fan lañ jëm woote bu nekk di xew xanaa yàlla yonent bi lim ko yónni doyul ah li yàlla yónni yonent bi doyul wallahi doy na sëkk ndax mënuñu koo def sax lépp ba mu jeex tàkk borom bi nee na sarafa allahu qulubahum noonu ñu soppeekoo génn mbooloo mi dem noonu ñu génnee jàkka bi dem noonu la yàlla di soppee seen xol yi loolu rek gis nga di dem fu baax ba ci yàgg nga quitté dootoo ñëwati noonu nga bàyyee dem ci place bu baax boobu noonu la yàlla di dagge sa xol terminé mbaax dootu ci duggati parce que lu baax li nga waroon am robinet ba nga tëj borom bi nee na xam nga ñoom lu tax ñu def loolu bi annahum qawmun laa yafqahun ay nit yoo xamante ne duñu comprendre seeni compréhension fi ñu war a comprendre foofoo yàqu dootuñu xam dootuñu dégg dootuñu dégg dara dootuñu xamati kon mbokki jullit yi nu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu defal nu tawfiq fi dunya wal axira loolu moom mooy sunu dars tey ñoo ngi jéggalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi